jërë ngeen jëf mbokk yi yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñi ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm ak salaam tey nag ñi ngi fii ci Géejawaay école de lutte Balla Gaye école 16 école bi nga xamante ne bii fii la Balla Gaye dale baa fii la Balla Gaye doon àndeek bay Balla mu koy entraîné fii la Balla Gaye njëkk a takkee ngemb wante fii la Balla Gaye njëkk a waree dem stade bëri ji tey nag ñu ñëw fii fekk si fii Balla Gaye fas yéene xool li nga xamante ne bii loolu lay entraîner loolu lay liggéey ak xale yi ndax ku nekk xam ne ne Balla Gaye gëjoon na ci école bi Balla Gaye gëjoon na ci écrit bi gannaaw ba mu bëreeg Bombardier ba Bombardier daan ko nag mu mel ni lin liñ ko doon wax ne Balla Gaye dafa am lu mu manqué le fi mu toll nii dégg na wax jooju ba tax na mu ñëwaat fi nga xamante ne bii mooy école bi mu mel ni Balla Gaye dafa delloowaat battu ca la mu fas yéene takkaan ngembam duggaat ci biir xale yi ñu fas yéene leen ñu fas yéene leen koo won léegi nii ci kanam incha allah bu ci yàlla àndee kon da ñuy topp fii ci Leewtoo TV man ak sama caméraman mañ le benjamin de caméraman xale bi nga xamante ne bii macha allah njool mu ndaw mi ndaanaan la ci biir ndaanaan yi kenn du moom nan dem ay ca ñu dugg ci biir écrit bi waaw gis ngeen xale yaa nga noonu di liggéey gannaaw ba mu bëreeg Bombardier le B52 de Mbour Bombardier daan ko expert yu bëri ci wàllu làmb defoon benn remarque ci Balla Gaye numéro 2 mooy li ma waroon a liggéey ci wàllu contact dafa desoon lu bëree bëri ci combat bi doon dox ci digganteem ak Bombardier mu mel ni Balla Gaye nag dégg na loolu ba tax mu dellu suwaat fii ci école 16 fii nga xamante ne bii fi la lépp doore gis ngeen ko noonu mu ngi ànd ak xale yi nekk ci biir écrit bi yëpp di ku ci mel ni fils la John Kara Jawde Forza Lat Dior Samba Lawbe Youssou Ndour Thiatou Daouda Fall Garga Junior ak ki nga xamante ne bii mooy elage Hadj Diouf numéro gis ngeen ko noonu Balla gay di def ay entraînement yi nga xamante ne bii mën na koo waat ci état de forme bi mu nekkoon bi ñu waxtaanee coach sam bi nga xamante ne bii mooy Lamine nee na Balla Gaye bi mu bëgg a gisaat mooy Balla Gaye bi nga xamante ne bii moom la ñu gisoon saison 2007 2008 saison 2008 2009 2010 ba 2011 nee na Balla boobu la soxlawaat gannaaw ba ñu régulariser combat bi nga xamante ne bii moo war a dox ci digganteem ak Gris Bordeaux le tigre de Fass Balla Gaye numéro 2 fi mu toll nii nag jublu na ci liggéey bi ngir waajal combat ak Gris Bordeaux te loolu war a am ci mois de août wax naa leen ko sànq nag fii ci école 16 fi la lépp doore fii la ko Baye Balla formé fii la ko Baye la tàggate bi muy bëreeg Dame Kandji di ko daan fii la préparé kombaam bi muy bëreeg Papa di ko daan fii la préparé kombaam bi muy bëreek Maam Góor Diouf di ko daan fii la préparé boobu combat wante digganteem ak Ousmane Diop ca rotation bu gaaw ba nga xamante ne bii wëndeelu na ci ndiggu usmaan Diop juróom-ñaari yoon fii la préparé boobu la combat tamit digganteem ak Bàcci Seeraas digganteem ak Saloum saalum digganteem ak Boy Sey wante bi muy bëreeg Koli Faye tamit boobu combat te olof njaay nag dafa am lu mu wax li nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyee ti jig na la te booy dem boo xamatoo fa nga jëm yoon la nag nga delluwaat fa nga jóge woon Balla gay numéro 2 loolu la xam ba tax mu dellu siwaat fii ci école 16 ànd ak xale yëpp yi nekk ci écrit bi ñu gis ci xar kanamam engagement détermination fulla ak fayda mu mot sëkk kon daal Balla gay numéro de kombaam yi nekk ci kanamam digganteem ak Gris Bordeaux digganteem ak Boy Niang digganteem ak Eumeu mën nañoo wax ne fii ci école 16 la koy waaje gaynde géejawaay gaa ngi noonu tàkkusaan bu nekk am na ko ci làmb bis bu mag bu nekk bëre na ko ci wàllu làmb Balla Gaye numéro 2 le lion de géejawaay fii ci école 16 ak école de lutte Balla Gaye yépp fii ci Leewtoo TV